الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على الفاتح الخاتم سيدنا محمد الناصر الهدي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره miqdaarihi al-azim mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci bir rew mi ak ci bitim rew di leer ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di seen yi xol ci ay mayam ak ci ay jaar-jaaram yéen ñep ci seen tour ci seen sant ci seen jëm la leen di nuyo nuyo di gën a tedd muy assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu fas yéene ak yéen ñi bokk bànneexal suñu xol ci jëmm ju tedd ji nga xam ne ku xas bànneexalee sa xol ci ay mayam dara dootul la sabati ku bànneexal say xol ci ay leeram tabaarakallaahu dootoo amati benn yëg-yëg dul ak yëgam mu mel ni at yëpp ñu ngi àndoon ak yéen ci mam khalifa xalifa subur ya yàlla bu màgg bi mu taalif taalifee ko ci jamonoy bayam mawlaaya alxaaji abdullah ñes bayam gàmm ci fukki at doomam muy taxaw di netali na sama dom muhammad ibnu Abdullah. ibnu aminata wax na turandooram muhammad ibnu abdallah ibnu amina jaabat xifaaran bi aadan la anisa biha salma ilayya wa duuni bahru ahwaali mu mel ni li aada miin mooy góorgóorlu ba mën a nettali sa mbindam baay doom ju ko def wàcc nga waaye doom ju góorgóorloo góorgóorlu ba sa baay di nettali sam mbind nag kooka maam xalifa ñes rek la ko yàlla jagle loola yombul maam Alaaji Ablaay Ñas gàmm ci fukki at léeg-léeg xaal ba dikkal ko mu wax waxin wëlliyu te waxi wëlliyu buñ la ko firilut nga diingat ko booru diggante ndax kalaamul awliyaa i lastu afdamu li anna nii ana ana wa hum mu fëgg na ba ne yàlla may na ma lu mayul yonent bi bu ko firiwutoon ñëpp yàq may na ma lu mayul Seydi Ahmed Tijani ñu ne ko ah Alaaji Abdoulaye Niass lu yàlla mayul yonent bi ba dana ko mayati keneen lu yàlla mayul Seydi Ahmed Tijani ndax dana ko mayati keneen mu ne leen dem leen ngeen jàngi usul may ak ngëneel duñ benn dara dana gën dara ba pare dara jooja jaral bi ko am may joo xam ne wala may yoo xam ne ku ko gën am ku yàlla bind yonent la gën sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla may na ci xeetam yi ay may yoo xam ne moom may yonentu lépp ñu ngi ci ay mayam ñu ngi ko amee ci nit ci nii li muy for yàlla mayut ko doom ju góor ju mësoor waxuma la juko tag waxuma la jum fekke tag wa waxuma la mu koy nettali man nak yalla mayna ma tabarakallah sama dom du tedd ji ma tuddee ko moy bokku ci borom xam-xam yi gëna mag ci aduna bi tag sayyiduna muhammad tag yi gëna rafet ma fekke ko diko net lolu loolu bi amuko mune Cheikh na tijani mi ma jël tariqaam di kenn ci ay taalibeem li mayam di rëy di sakal lepp yalla may ko dom ju góor jo xamee na ni tag na yonent yalla muhammad ba mu tag cheikh na tijaani ci dundam ba cheikh na tijaani di nettali tagg ya ndax domam ya ba nekk ak nekk fekk na cheikh genn na bi cheikh di genn àdduna fukki at ak ki bi cheikh di genn àdduna fukki at ak juroom ben jëm fukki at ak juroom ñaar ci digënté cheikh Mouhamadul Habib ak cheikh Mouhamadul Habib ba tijaan imu baba ne wa taraka cheikh wa taraka min al awlani min baxdihi li rahmati l ibaadi najlayni manhalayni lil wurraadi kilahuma kal kawkabil waqaadi te man nag yàlla ma doom joju muy al hajj Muhammad Niass loolu may la ñu topon téré bi bayam gàmmu fukki at ba yegg si woon ci ñaari champion yi dàqoon a bëri ci seen jamono ci arab yi dëkk yonantu bi nekkoon ko nañ bëri soo ñu daanee ñu dugg ci lislaam ñu la daanee nag yow tamit li nga nekkoon bàyyi ko ñëw fekk si ndax ñun ku ñu daan rek nekkatul mbër waaye xanaa mbërëm yàlla ñu mën daan waaye mbër yi rek ku ñu ci mën a daan am ku njëkk ka mooy abu aswat amoon doole ba bu taxawoon ci ab der fanweer yi ëpp doole bu ñu doon xëcc der ba der ba day xotteeku rek mais du buus moom la maam xalifa ne was al aba aswadil mudli bi quwwatihi isaara al mustafa fi mawdi al waaye keroog ba ñu songeeku yonentu bi moom matul sagandu yonentu bi daane ko mu ne ko nañ bëreewaat bu doon léegi nga ne dañoo roofoo mu daane ko mu ne ko nañ sëgg mu daane ko ñii ne booba rek la dugg ci diina ji ñaareelu mbër ma mooy rukaanatu rukaana ku mënoon a bëre moo doon champion waa jamonoom keroog ba mu mburoo foog yonantu yàlla Muhammad taxawul xëf xippi rek yonantu bi daal moom la maam xalifa ne wasal laajal rukaanata aydan ba tey is saara xiina saaraxahu waxtu wam bëreeg yonantu bi soo ko laajee yum bi ko dana sorola anu ci moom bi xaqin ci dëgg duuna iskaali ci lu dunu lëdd mu ne billaay boo laajee rukaanatu mii kérok bam mu dëkkee bi ne ko nañ bëree boo ma daanee ma dugg ci diina ji mom mooma mo lay sax wax nu victoire ba démé mu ne ñaareel ba boko réré wa salla jël suraqata jàmbaari fak ta la ci arab yi kérok ba yonent bi génné di defi manam hijra mo né won ma koy dabi fekk booba màkka teg nañ téeméeri gëlëm ci ku leen indil boppam sayduna muhammad ñaari téeméeri gëlëm ku indi seen ñaari bopp ya muy boppam sayduna abubakar ak boppam sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam suraqatu jug sol mbubbam ko ngamma war naaru góoram nga ne balaa ngoon a jot ma indil leen ñaari bopp yi mam xalifa ne bam demee ba dëgmal yonent bi bëgg koo song yàlla jox na yonent bi suuf jox na suuf ndigal mu wax yonent bi ne ko loo sant suuf tey mu def ko ni yàlla joxe woon ndigal yonentu yàlla Muusa ci suuf bi mu namee ala Qaaruuna noonam yàlla bu bon boobu noonu la yàlla joxe ndigal suuf ci yonent bi pour mu jëflanteeg suraaxat yonent bi ne suuf téyel ma suraaxatuwaay suusa téye ko ba ci wëqu fas wi mu yuuxu xaacu ne ko soo ma bàyyee dootuma la toppati yonent bi ku baax ku bëri ma ne nekko suuf bàyyi ko waay suuf bàyyiwaat ko mu xelaat ñaari téeméeri gëléem ku leen gañe nekk millionnaire bu jugaat ne ma ngi koy song mu ne suuf téye suuf téye ba ci wóomu fas wa mu départaat mu ne ko yoxu mu ne ko souf baye ko moy dem di ñibi ba ci kanam daw lu mat genn wala kilomètre xelem dajaat alal jubari ji mu ne day songaat yonent sallallahu alaihi wasallam ne souf tié ko souf tié ko ba ci jumb ko fas kérok la yoxu ne ko waxuma la dabi la waaye ku dabi sax ma dëpp ko ta ma ngi seede na sama taxaway bi dina dugg ci diina ji ni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah koku lay mam khalifa ne wasalla jal suraqata isaaxat waqtu wa nga nuruna bi sikkatihi andak ak ya lan mo nur jardaw molu ñegg wa saabixatun molu wa woo da fay sey bu buy daw day sañ tang kanam ya melni jambar juy féey ci bir geej waye nak num nuré ngiro place ngiro yi foofa indonewul deful dara waaye terewul naaru góoram wa rëpp na ba gis a place ba aw xaal jam woo wax lin ba nekkul place boo xam ne dafa tooy waaye ñaan ak yonent bi moo réformé place bi ba mujj maanaam téye tànki façon wi ci biir ci biir suuf si lama daawu ba mu wooyee yonent bi bi sawtin ci kàddu xaayifin wala nga ne bi sawtin ci kàddu xaayifin bi raglu wajjilin ku kaddu ku raglu ku tit na jaw fa la ko musale rabbul wara borom mi fi min ba'di ikhali gna wax satta baba nak naru goru dur na ci suuf ba ya mënta buddeeku yonentu bi ne ko waw te nga bàyyi lii yow li ne yang may dab dama lay laaj bo li may bu kisra ba ñu jël mbaxanam bur ba manam solal la ko def mu ne ko lol dana am mu ne ko dana am de li may wotale na yegg Kisra ci baghdad ci Iran ñi jël mbaxanam bur boba solal la moo tax keroog ba Omar ibnul Xataab Kisra dafa ne ana suraqatu mu ne ko maa ku jexam la woon loxoom dafa fesson teg ak kawa mu ne ko kay ma dëggal wax yonentou bi sallallahu Alaihi Wasallam. sallam bang koy dabi ci hijira ba waxon na la ne limay wote na yegg Kisra bañ jël nam bur ba deppal la ta boba Kisra ak qaisar moy itali ñoy ñaari puissance yi gëna a ci àdduna mi ngi melni tay ni Europe mel ak amerique rek boba sen monnaie la doon bi di daan jëfëndiko ki yore manam dinar ki yore zahab comme tay ni àdduna bi di jëfëndiko ñaari monnaie ñoy kondir àdduna bi muy euro bi ak dollar bi moo tax booba jamono jooja ci ñaar yooyu lañ daan natt asaka yi yonentu bi ne ku am lu mat ñaari téeméeri dërëmi yor nga génne ci asaka ku am ñaar fukki diinaar nga génnee ci asaka ñaar tërëmi déeméeri téeméeri dërëmi yoon ya moom raaf na kenn mëntul koo gis mais diinaar ya mën nañ koo évaluer ci ji jamono bañ ko seetee mooy tolloo quatre vingt cinq grammes ci or dix huit lu toll noona moo tollook ñaar ñaar fukki diinaar moo tolloog tamit lu mën a jënd ñaar fukki xaram tabaskeem kilifa yonentu ma sa jël ku ñu tuddee xorwatu benn bi jox ko benn dinaar damaa bëgg a tabaski demal nga jëndal ma xar muy ko xam marché bi dugg ci ruq ya benn dinaar ba mu jënd ca ñaari xar jaay benn ba benn dinaar ñëwal indil yonentu bi xaram ma ak dinaaram ba yonentu bi ne ko loo jaayee te yàlla na jar boo yónni yónnil ndaw lu mat ndaw fofa nak lañuy évaluer ni feew mana dem ci aduna bi lu meuna jënd ñaar fukki xaram tabaskem kilifa lola moy tolok nisabu urus ci asaka moy tolok nisabu khalis ci asaka motax nak nag umar Omar solal ko koddaayal buur ba lam ya sen bur ya dañu bew dañ dan tak lam ba mu yex ci sen conc yi takk mbaxanam mbaxanaam mu gudd ga xamne na lu mat ñetti meter ci kaw maam xalifa ne wa baax du gannaaw saga al albasahu waddee na ko faarooku sayduna faaruuk mooy kiy teqale dëgg ak fet mumtasilan mbir mu muy aji topp ndigalal yonent bi lu mu ko woddee min xuli kisra ci koddaayal kisra ya lu mu ko ca woddee siwaaray maadinin ñaari lami mbell xaali yu seer ñaari takkaayay mbell yoo xam ne yu seer seer loolu yonent def na ko bu ñettel ba ci yoonu gaddaay gi la rombu benn soxna bu ñu tuddee ummu mahbat ab sàmm la mook jëkkëram yonentu bi ne dama bëgg ngeen may ma meew wala ngeen may ma soow ñu ne ko dara desu fi ci meew mbaa mu ne ndax gàtt yi mënu leen ma cee jox benn marat ko pour am meew ummu mahbat ne ko gàtt yi benn fi def ci kër gi te li ko fi tax a des tële moo tële moo moo tax mënta wëtti yonent bi na ko jox ma ndigal mu jox ko ndigal yonent bi raay ko gàtt ba suur ca saasa mu jël loxoom yu teddee teg ko ca enaat ba mu fees teg mu ratt bëkkale ya fees mu jox sayduna abubakar mu naan jox tabaarakallaahu ahamir ibnu fuhayra mu naan mu abdullah ibnu urayqa mu nan yonentu bi doora ratat mu mujj naan la wax nasi bu siw ba saqin nasi naasi suba kuy nandal nit ba ya fess mu dor len ko baye motax kuy attaaya te deg sunna da nga wara jox nit ñi nan ba pare yow nga doora waye boy bëgg kaas ne damay mos ndax saf na doora jël kaas bam fess dor ko na de gosu non la yonent bi doxalee saaqi nasi si axiruhum surba jeuker ga ñew rek ne waaw meew mi nak mune ko ben waye fi jaar de ni la mel mune ko ya gatt nopp koku waaye moy niti Quraysh ga mooy yonentu yàlla bi ñu doon xaar wax ma yoon wi jaar mu wax ko ko rek mu daw daw xel ba dabi ko tuub dugg ci diina ji moom la maam xalifa ne wa ummu mahbada ummu mahbad massa ba mu lëgg-lëggalee xaa ilaa gàttam bu woos ba xaa ilaa gàttam bu beekoor ba bi kappi yum naawu ca ténkal nday jooram la xaddarat wasal na bi insaali ci wàccee meew loolu ténkal yonent bi def na ko mu ne tamit defaat na nag jëmbët ndax bi mu demee war a bees fekk salmaanul farisiw mi ngeen xam xeeñtu leer ak yonent bi moo ko yóbboo bañ jàpp ko jaam jaay ko madina da doon xeeñtu yoonu yonent bi rek ci xisa bu gudd ah benn bis bañ kertoo yonent bi ca ngoon ga rek xarit maanaam njaatigéem bi am benn xarit ñëw ne ko waaye waa ansaar ñoo dof waay booba sax tuddaguñ ansaar waa awsulaay wax ak xasra ñoo dof maa ngi leen fekk ñi ngi tertu benn waay ñu naan ab yonent bi yàlla mom bam déggé kaddu kàddu fekk mi ci kaw tandarma gi dafa loxo lox ba daal ñew sukku ci kanam sang bi ne ko lo wax sang ba gëdd ko ne ko yow ab jaam nga di man nga liggéey fekk nak waxon nañ ko ne yonentu bi ngay xéñtu dana lekk addiya mais du lek sara xóot xóotu mbagam chamoyam mi fofu lañ ko lu bootu ga ñang ci bind la ilaha illallah muhammad rasulullah Ya muhammad sir fa innaka mansur ah mu indi ñaari mu ñëw rek indi addiya ñëw fekk yonent bi toog mu ne ko lii maa la ko jox addiya yonent bi jël ci yàlla bu leen leen dimbale fi mu toog beneen waay ñëw fekk ko mu toog mu yëkkati sarax ne ko maa ko jox yonent bi delloo ko sarax ba ne ko ñun laa naakulu sadaqa ah mu ne am naa ñaari preuve ñëw nag féetee yonent bi gannaaw rek te yonent bi dafa daan gis li ci gannaawam comme ni muy gisee li ci kanamam tekkiwul nag dafa am bëti gannaaw waaye am na gis ak gannaaw jibril ne ko xawal defar sa mbubb mi waa ji nekk sa gannaaw benn preuve rek moo ko tere dugg ci diina ci yonent bi xaw a defar mbubbam mi rek mu gis tampon rek daanu ca fóon ko jooy jooy yu su ko defee nag dugg ci diina ji jaayanteeg yonent bi wax ko nak ne ko ah dama nek jam te suma sañon damay nek ku mom sama bop ñi libéré ma boo wootee xare ma dem yonent bi ne ko dégg na la badar jot demut xareeb uhud demut tarde xara yoy metti ku mu ñewat ci yonent bi ne ko dama bëgg nga dimbali ma lu ma ak sama sang bi dama bëgg nek bor lo loo ti ma bokk yonent bi ne ko demal nga wax sa sang ba ñaata la lay laaj bu la ko waxee nga ñëw ma dimbale la ci sanga ma nekk ku soxor ne ko danga ma jëmbatal ñetti té ñetti taatu téeméeri tàndarma ñetti téeméeri tàndarma tàndarma boo ko jëmbatee bu gaawee ñor ba gaaw a ñor juróom-ñaari at lay am mu ne ko nga bàyyi ko ba mu ñor nga witt ko teg ko ci sama kanam boole koog jox ma lu mat fukki uqiya ak ñaar ci wurus door a nekk ba burung legi nga ne ko dag ma jox kilo or ak ñetti tatu téeméeri tandarma yo xam da fay ñor nga wittu ko tek ko sama kanam yonent bi tok ne ma ngi ñaan ku ma may dara ci wurus ñu jox ko lu tuti bañ ko dajalee lépp tolluwut tuwaawam nem kon matul sax garam presque mu ne ko demal nga wax sa sang bi ne ko gram bi na ci kilo or bi mu soxla mu dem waje di pc muy daanu pc muy daanu ba lañ waxante on ci or ba mat te la ko yonantu bi joxon dara manki wut ca mu joxat ko ko mu indil ko yonantu bi bi mo meuna fekk lu tuti mu bëril ko mo meuna fekk lu oyaf mu diisal ko mu dess nak ñetti ñetti ñetti téméri taatu tandarma ya ah yonantu bi wote ne dama bëgg ma soxla yeen wa lan ku am njëmbat andil ma ñëpp andil ko njëmbat mu ne mais na ñëpp tubbi bu kenn nag suul maay jëmbat lépp ñi gasal ko muy jëmbat ñi gasal ko muy jëmbat ba ñetti taatu tàndarma ya jeex ñetti téeméer yëpp trois cent mat benn rek la ci yonent bi jëmbatut Seydina Omar moo ko jëmbat booba moom dafa dee Omar ne ko waroon nga maa wax ne da ngay def mu wax sama bàyyee la ko man damaa foon dag na nañ jëmbat rek waye li yéeme waxna la tandarma juróom-ñaari at lay am mais bi yonent bi jëmbatee tandarma yoya tandarma ya mag ci at mi tontor ci at mi ñor ci at mi ñi wittu ko ci at mi salman gore ci at mom la mam khalifa wax ni wa rasa jëmbat na nax la tandarma ya fi amin ci at wa asmara mu fi asnaa yi ci bir atma yàlla woo yéemal min maxrasin ci jëmbat ali bu kawe jëmbat gi lu gën a jëmbat tam caaxaan de jëmbat gi lu jëmbat ak caaxaan bi ci tegu tamit mu ne yàlla mayoon na yonent bi lépp ko respecté lépp ko bëgg waxoon naa la ko démb ne doj yi sax dañoo bëgg yonent bi animaux yi wala animal dañoo bëgg yonent bi yent yent yi nekk ci suuf dañoo bëgg yonent bi mbëtt yi kéwél yi dañoo bëgg yonent bi hatta nga nek safara sax li ñuy bon bon buñ duggé safar dañ bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam. motax buñ leen lakké ñi saalig ne yaa laytana atana allah wa atana rasul ko lepp ko bëgg bëgg ma tax bu daan dox ci beñ mam khalifa né beñ ba fay mujj deugër buy dox ci kek kek la mujj noy. beñ ba day wax né suma ma fi nekkee sama beñ bi, ba pousséral tankam yi mbaa ma fakkastal ko kenn duma jitu safara tekkal ne waw suma fi nekkee sama deugar lay bi ba xuri tànkam yi ma ma nàccal ko ma ma métital ko bo liggéey ken duma jitu jiitu motax buy dox ci beñ beñ ba day sol mbubam kek buy dox ci kek kek la sol mbubam de wax na ko ca fële wa in masa ala shahri sara sahru katini motax man wa in masa bu doxé fii rimaalin ci beñ la tara do gis asaran jeexital ku dox ci benn poussière bi xaw a rey nit yàlla boo dem ci ranran yi waaye yonent moom bu duggee ci beeñ di dox doo gis benn poussière bu yëkkatu waaye nag aw fi suqóor yi bu fekkee dafa dox ci kekk yi yéliinu dana nooy saxaru kekk la fil xaali ci lu teew léegi léegi léegi mu mun mu mel noona moo tax benn bis dem na fële ca Uhud ñii ne ca Xiraa aw doj la yonent bi dëggu ko melut na moromam yay mel nekk ci dëgëraay ba mu rippi ko ne dalal ab yonentoo nekk ci sa kaw ak dëggalaa ak ñaari woy shahid moom mooy yonent ba dëggalaa ba mooy sayduna abubakar ñaari woy shahid yi mooy sayduna omar tabaarakallaahu ak sayduna osman ñoom ñaar ñëpp dañ leen a rey te ba bi joxe information sayyiduna umar defar len sappi ci julle timis xulaamu abi lulu aba jam ko paka paka jasi motax ñukoy tuddé shahid shahidul mihrab jam ko ñi leewu ko yobbu ko kërëm di seet jam-jam bi yegg na ci xol bi mbaay yeggut ca ñi jël soow di ko indi mune saw mi munuma ko ñàkk naan te su ko ñaanee dee ndax man dal saw la gëna bëgg te yonent bi nee won mom mom ngay mujjana am ko nané rek waccu xamuñ dereet la waccu xamuñ xamuñ xamuñ lu waccu ndeke jam-jam ba yegg na ci xol ba ci la jaaré genn aduna waaye nak situation bi limuy metti metti wax na né na abdurrahman ibn Awf jité julli te xoolal ba jam nañ ko bañ dana dund ak dé dee xoolal ñu tegoon mu jité julli ga ci ñaari sar yi gëna gatt ci alquran Ousmane Ibnul Affan bir kërëm lañ ko gaw ci mborom tëralami politique dañ ci yegg xissa bu gudd ñu sarkale ko lu mat ñeen fukki fan ak juroom ñeent mu jigo fek ko muy jang alquran suratu baqara ba ci aya fasa yakfikahumullah ni ray ko ba deret je turu ca kamil ba ñu dag loxom soxna muy sayyiduna Ousmane lu bon yag na fi de ak wuute yàgg na fi politique yàq na fi ne te politique rek la woon ci diggante Marwa nag la ca yooyu yëpp kon nag xam naa tey dañoo am ay gan te dañoo xaw a guddee ngir gan ñi muy suñu mbokk yi Seneweb Seneweb waa mu ngoog daanañ leen may ay waxtaan ñu sàkku woon ne dañ fiy ñëw sàkku ci ñun ay waxtaan yu leen defal tabarakallahu ci weeru sayyiduna muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. ko defé bëggoon nañ ko defé sax ci kër ga waye biñ ñëwé ba légui amuñu benn occasion buñ ko mëna defé defee nañ ba installer sax dippi presque takusan lañ fi ñëw ba légui waye bo ba légui occasion buñ mëna a waxtaanee amul ñu ñaan leen ni nañ ko def benn yoon ma may leen nak ñi joxe seen kàddu rek laaj yi bëgg laaj ko mu laaj ko ñi ramasser ko jaar ci ñaan ba subaat ci waxtu wi incha allah bisimilah bisimilah. بسم الله صلي على رسول آه إما سيدنا نبع سيو أمو الصلاة سهل لو boole moom aywa bisimilah

ndax alquran fay wax ne fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa waye suñ borom waxal na ci beneen ayena balillahi balillah yuzakki man yasha ku taxutoo nak balillahi yuzakki man yasha duñ wax ñun ñoy kan ñun dal benn jaamu yalla lañ ci jaame yalla yi fasiyene jël suñ bop def ko muy matériel ab lislaam fépp fu ñu lislaam ak ci lepp lum ñu soxla lum laaj danañ ko def luñ am dañ ko def ci l'islam luñ man dañ ko jox l'islam lolu nak nekkul ndono luñu ndono ci suñuy wajur ya wajur wu tedd wa mawlaaya alxaaji ahmad Nias ci suñu wajur di nit ko xamne nit yi la woon di nit ko xamne nit yi xam-xam la won ta arab dañuy wax ne nitu yitte fay dundal aw xet rajulul himma yuhyil umma ñun ñepp damay wax ne ci ak njabotam buñ boole won suñu hitte yi mom kenn mu ñu ëpp yitte tasare na l'islam fu ne na ko timit ci nuni te li ci ëpp ci num doon tasaaree lislaam ay moyenam lay def te mooy fekk nit daana dem bay dem ci dëkk boo xam ne du am yoon ñu mujj jël ay sémbañ di gor garab yi pour oto bi mën a jàll noonu la daan def ba bi Bissau noonu la daan def ba Gambie noonu la daan def ba Côte d'Ivoire noonu la daan def ba ba ba fu ne dem na fa tasaare fa lislaam Yalla mayon ko mu nekkon nitul jaba bu dan kaf yalla deugal bu juumee yalla jubal dafa dan wax ne suma ma sama borom ben mu may ma fukk su ko maye suma ma ko ñaanee fukku mu may ma téeméer xiteem ak mbaxam ak taxawaayam a tax gi gii judduuhut fa waye taxawayam ak xam-xamam ak lijaabaam ak mbaaxam tax buñ ne ñes kaw la rek ne borom ndukumaan du ko manqué jamonooy ceddo kenn ko mosa moom muy bëlëb ndaw ci jamonooy sëriñ kenn ko mosa moom alxaaji ahmad ñas kon kooku mooy suñu waa ñas kooku tamit mu ngi soqee koo ci jëmm ju tedd joo xam ne man su ma koy définir damay wax ne mooy borom xam-xam yi borom xam-xam muy maam xalifa ñas góor ak yàlla gi nga xam ne dafa judd rek dajeeg jëmmi xam-xam dafa judd bis ba dellu yalla wërsegal ko wërsegal bayam mu jàkkaarloog sayyiduna muhammad yonentu yalla muhammad moy jëmi xam-xam bayam wax yonentu bi ne ko sama dom ji di sama taw yow la fasiyene yéenee tuddee bi ne ko naawil nii iyaaw jottalil ma mu fexé ban jël ko tayayam yaayam wa kër ga yeguñ ko jox ko yonentu yalla muhammad yonentou bi sallallahu alaihi wasallam djel dundam bim don sefe xam-xam di sarse xam-xam sës ko khalifa djel jël meñam wam don waxe xam-xam di ci ñaanal nit ñi di ci gindi nit ñi sexal ko mam khalifa Niass mu ne kérok bama yonentou bi sexalee làmmeñam meñam wala deg arab kérok bama sefe dundam bala fess dem ki ki moy mam ji nga xamne ne jul suñu bay di mam khalifa Niass di jëm jo xamne ne moo khalifa nekk général ci lew na Buma wax sax lew na nga sen gi yeb duma wax nga sen gi yeb sax moy ki ñeuk nek khalifa xalifa ci ci ci rew mi yeb ndax bayam ala jabla ñes mo magon kangam yu mag yi nekkon ci rew mi ku melni ni mam sayyidil haji malik ku melni ni khadim Rasul motax yalla dogal bayam ala jabla ñes 1922 ci la genn aduna ci wéru wari fukki fan ya ak juroom ñett tolloog adadu hayu ba mu génnee àdduna njëkk loola fekk xilaafaal na ko bind leetar bi Sukayruju diggante bi mat na fukki at Sukayruju ne ko ñun waa xadra bi yëpp nangu nañ ne maam xalifa mooy sa xalifa waaye ñun ñii tamit nangu nañ ne maam mooy xalifa am Seexu Tijaan loolu tamit mu wax ko ko yàlla dogal loolu diire na fukki at moo tax fukki at yooyu lépp ku ñëw di ñaan wir wirdo mbaa muy sàkku taqdim maam alaaji day wax ne dem leen ci xalifa mooy sama xalifa mooy xalifa am Seexu Tijaan ba fukki at ya maté nak tombé 1922 wéru wari fukki fan ak juroom ñett tombeeg bisab alarba ci la mam ala Hadj Abdoulaye Niass génn àdduna maam Khalifa wutu ko ñi tek ci fukki fan ak ñaar tombeeg bisab talata sayyidil haji malik nawlem ba xaritam ba wuy ji boromam Seydi Aboubacar wuy wuutu ko ci ñi tek ci juroomi at mu tolloog 1927 khadimul Rasul Cheikh Ahmad Bamba wuy ji boromam Cheikh ibn Moustapha wutu ko motax mané kon moy ki ñëk nek khalifa ci réew kooku tamit soqeekoo ci alaaji Abdoulaye Niass alaaji Abdoulaye nag mooy mooy daj dëpp alaaji Abdoulaye Niass mooy yàqoobu tariqa bi yonentu yàlla yàquba ni ko yàlla mayee njaboot gu góoru kese la am ñëpp a baax ñëpp a xam ñëpp jub ñëpp am may noonu la yàlla mayee maam alaaji Abdoulaye Niass njaboot gu góor ñoo xam ne ñëpp a ñëpp a jub ragal yàlla ñëpp am cër moo tax mooy yàqoobu tariqa bi loolu lañ koy dàkkantalee kon dal ci teunk bu taxul fala du sakku am fu sakkum daal ci mën yam benen lak bi moy euh, ñu bare bare ci senegal léegi ñu def ko weer ko te di ko sa àddina suñu kàpp si dañ leen di daal sakku mën na ko wax lan la ñu expliquer ne mooy ci su bees boobu waaye tamit lan nga def ci sopp ñu mëna am def différence par rapport di ñu daan ko ba mën nañ ne ay at bi ñu topp loolu ñu commencé. lool lepp ngëneelal yalla la. gi yonentu yàlla Suleymaan waxoon hada min fadli rabbi li yabluwani a ashkuru am akfur lii daal nga ne yàlla la dafa ma koo nattoo rek seet ba xam damay sant yàlla wala seet ba xam damay dama ci jaare bew wala ma fuuy waaye man duma def loolu damay sant yàlla rek na ngëneelal yàlla rek la ngëneelal yàlla li tamit yàlla jaaree ko ci lañu suñu waajur daan wax Seydi Mouhamadul Amin bi may jox tafsir bi dafa ne ma bu leen ni yàq ñi leen di déglu te ñett ñoo leen di déglu te bu leen leen bu leen bu leen leen yàq yàpp ñi ngay déglu mooy indil leen lu wérut te ñett lay déglu ñett ñi mooy am na ku la raw di la déglu ñaareel ba am na koo tolloog aliwa mu lay déglu ñetteel bi nag am na koo xam ne yaa ko raw lépp loo wax muy masala gëm na ko boo waxee par day dem jëfandikoo ko ma ne ko ñett yem na kii laa ci gën a ragal moo tax nag li ñuy wax dañ koy jox ak xam sonn ci lool benn aaya bu ne ñaareel bala ma koo tafsir danaa liir lu ëpp fukki tafsir ma seet version yu nu mu demee nag ma doon koo boole tafsir boo wax rek bu ñu tafsir bu ma dégg bu baax la ak lu mu mën a jar rek ma jënd ko xool aaya ji kii lu wax lu jalaal wax tabaarakallaahu lu ruuxul bayaan wax lu ruuxul maani wax lu maraaxi wax du tafsir manam eh, eh, eh, nangam ak nangam ibnu kathir wax du safatu tafasir wax non la koy topé ci tafasir yi aaye june mako li ci ñom ñepp wax dor ko deppalé seet ni ma déggé dor ko mën su boba nak kon boy wax ta yabulu ñi lay déglu rek yalla man na ca def timit tabaarakallaahu barke boy wax timit te ba ngay wax gisoo ci sa bop jémo ci yëkëti sa bop ndax wax bo ci jëmé yëkëti ko rek sayyid lami dafa naan wax tamit wax ji lu bari bari bu ci leble bu ci fayee ku bor ndax wax bo ci leble ba nga fayee ci ku bor rek mu sof nit ñi loolu tax na kon yalla ci def barke moko doxale nonu lepp dal dalika fadlullah yutihi man yashaaw wallahu dul fadlil azim bu ñu am xam ne di ci ci jàng ko ñaan mais yow am xam dañ ko waaw benn bi rek la homme de média média bi moom jamono rek moo ko laaj te jamono ji dafa ñoo dimbale ndax boo nekkee nitu diine li la war mooy jàngale saa yooyu wootee nit nitu diine laa jàngaloo kenn diine yaa ci boole sa bopp mais diine moom génnee la ci diine moom jàngale rek la waaye ne damay nekk ci diine ji nangam ak nangam buñ la laajee yow koo jàngal mënoo wane kenn buñ la laajee loo taxawal luy jëriñ nit ñi ci wàllu diine mënoo wane dara kooku yaa ci boole sa bopp mais bokkatu ci diine ji diine yi xam la diine ji diine yi xamle la diine ji diine yi xam la moo tax juróomi yonantu kenn ku ci nekk xamata yàlla jox ko daraja ci kaw nitam yonentu yàlla Adama ci jiitu xam-xam rek a tax malaaka yi rod di ko sujootal ci wa allama Adama asmaa kullaha ak yaa Adamu ambihum bi asmaayim looloo ko may usjudoo li Adama ñaareel ba yonentu yàlla Daawuda xam-xam a tax ci wa allamnaahu sanaata labuusin googu yàlla ràngal ko moom ci la amee mérite. nekk xalifaam yàlla ci kaw suuf ci yaa daawudu inna jaalnaaka xalifatan fil ard yonentu yàlla Suleymaan xam-xama tax bay ba xam li picc yi wax xam-xama passé woon na même li picc yi sax dafay wax wa allamnaahu tayri loola moo ko doxoon moo ko joxoon tey pouvoir bi mu amoon jinne yeeg malaaka yeeg nit ñeeg ñëpp tàggatu topp ko ba ci ngelaw li ci wali Suleymaan riixa budduha shahrun wa rawaaha shahrun ku mel ni xadir ñii ne yonantu la ñii ne wëlliyu la seex na tijaan ne wëlliyu la xam tax taxoon ku toll ni yonantu yàlla Muusa topp ko ne ko hal attabi'uka alaa an tu'allima mimmaa ullimta rushdan ba mu jël takkaayu nekk ci gannaawam la ko doon defal yonantu yàlla Muhammad tamit xam a tax tey ñu njëkk ñeeg ñu mujj ñëpp xombatu nekk ci gannaawam ci yàlla lim ne ko wa allamaka maa lam takun taalamu wa kaana fadlullaahi alayka aziima kon xam xamay lépp bo demé ci bukhari sax buntu bu ñëk bi ñëk njëkk ci téré bi da fay wax ne babul ilmi man al ilmu qabla al qawli wal amal manam buntu xam-xam bala kenn wax wala bala kenn jëf na fekk xam-xam jiitu xam xamay lépp Cheikh al Islam Haaj Ibrahima dafa daan wax ne al ilmu huwa al imam imam manam xam-xam mo wara jité lépp kon xam xamay lepp mam khalifa am koy wax wa kun hilfa tahsilul ulumi wala takun muxillan bi ilmin min ulumi sharia loolu la wax kon mu ne foo toll rek demal nga gëstu ji xam-xam moo tax kon diine ji ku ci bëgg a liggéey da ngay xam ñaareel bi boo xamee tamit da ngay góorgóorlu nga xam ne loolu nag boo ci nekkee daan xamle di xamlu di xamle ba média ñëw fekk la ci nga cay yëngatu dama daan wax sax ne ñun dañoo war a fay média yi door a joxe suñu message loolu la ndax ñun bi dafa ñoo dimbale ndax dimbale ñu tey dañoo waroon a jàngal juróomi nit juróom nga mën a joxe benn leçon boo xam ne ay millions yi nit ñu ngi koy loolu média ñu ko may moo tax man bi ma njëkkee dem RTS booba ay ñaar fukki at juróom la am di fa def naa fa juróom-ñaari at yàlla seedi ne ne oustaz ñu fa nekkoon dama leen a wax ne ñun dañoo waroon a fay di wax ndax li suñu mission la ñu nekk ca nekk ca nekk ca. ba yàlla dagale ñoo suñu waajur wu tedd wi Seydi Mouhamadul Amin mu jëlal ñu boppam dugal ñu ci wal fajiri jox ñu fatwa bi jox ñu tafsir bi man musuma sàkkur ci benn rajo ne damaa bëgg a wax fu ca nekk rek yàllaa koy dogal ba indi ma ñoom ñu jël ma waaye fekk bindu ma kenn leetar sàkkuwuma ci kenn tamit damaa bëgg nga jël kon maanaam li nga wax nii muy maanaam doomu soxna di jàngale ak média benn lañ média dafay dimbale doomu soxna yi bu ñu xamee ne jumtukaay la bu leen di dimbale ci seen yoon mu gën a gàtt gën a mën a tasaare seen daawaa xam nga ne mag ñu baax ñii liñ fi liggéey bu buñ tombee woon ak média bi adduna bi yëpp dana gën a leer ku tool ku tool ni Alaaji Abdoulaye Ñas mën a firéem alquran nam moom ak xam bu rëy boobu bu dajee woon ak média yi ak tiktok yi xaw ma ngeen koy wax kon adduna bi yëpp dugg ci diina ji ku mel ni Seydil Hadji Malick xam-xamam bu leer boobu bu dajee woon a média yi adduna bi yëpp dugg ci a ji ak ku mel ni xaadimu rasul Cheikh Ahmad Bamba ak seeni njaboot buñ dajee woon ak média yi su boobaa tabaarakallaahu yaakaar naa ne àdduna bi yëpp dañ bëgg ci diina ji kon nag média du dara dafay dimbale képp kuy woote ci diina ji rek ci yoon wi mu gën a gàtt gën a yomb mu gën a tasaaroo. lan lañ gën a différence ci jàngale ci daara ak nga xam ne xam-xam lay say ñoom ñaar ñëpp xam-xam moom xam-xam rek la xam-xam bu baax rek nekk lu jëriñ dañuy wax sax ne benn xam-xam bonut ndax boo jàngee ba xam-xam-xam bi bon yàlla mën na laa dimbale nga mën koo moytu mën cee moytu lu ñeneen kon jëriñ na baax na doomu daara timit bu jàngee xam-xam buy buy jàng bu mu jàng leen na jàng lépp rek Cheikh Ahmed Tidiane si dafa daan wax ne xam-xam bu néew moom ak kuy sangu am ndox mu néew ñoo yem balaa gën a métti nga dem ba saabu sa yaram wi yëpp dara dootul lu sotteeku ndox ma jeex da ngay am problème kon mu ne da ngaa war a xam lépp rek ilmu kulli shay'in afdalu min jahli xam lépp xam lu ne moo gën nga réere ko moo tax ni nga jàngee sa diine ba xam ko nun nga wara jangé sa aduna ba xam li ngay jëflanté nii xam diiné kese té yow jango nit ñi jango sa jamono ba mëna jëflanté jëflante doo mën communication ak nit ndax xam xam xam diiné muy xam téré yi mo gëna yomb xam nit ñi parce que nit ñi dañuy ko jamono bi nekk motax da ngay jang diiné ba xam ko jàllal bi ko jang nit ñi ba xam leen su boba bo waxé ñom rek mu nekk lo xam daf leen di jëriñ ñu ci bëri jang nañ diiné ba xam ko mais jànguñ nit motax mënu ñoo wax ak nit bu ñu waxee nit ñi rek lañ cay teg mooy saaga mbaa ñu mere leen mbaa ñu wax leen yeneen i wax nangam ak nangam dafa fekk maanaam dañoo xamut nit ñi boo leen xamut doo mën a wax waaye boo leen xamee rek boo defee communication ak ñoom rek mu jariñ te tamit fi jël doomu soxna bu ko faa classé rek mooy daara ji rek foofu nga war a féetewoo ak derbeeg kurus ji bu nit ñi soxlaa nga tàllal ñaan loolu dafa gàtt ba loolu doomu soxna moo war a yore lépp ba fi yonent bi nekk yëpp pouvoir bi benn rek la woon ci loxoom moo moo yilifoon adduna bi moo yore woon assemblée bi moo yore woon palais bi moo yore woon maanaam hôpital bi moo yore woon mihrab bi di jiite bu xare bi jotee mooy rëdd armée bi loolu la yonent bi bëgg nitu diine mel lu nekk rek yaa ci war a taxaw waaye bul jàpp na ñëw rek allahu akbar asalaamualeykum rek nga dem ñibbi jeexal nga ca déedéet dafay war a bëri ay ay ay ay taxawaay yoo xam ne da nga war a taxawee ci diine ci ci côté bu ne ci wàllu social rawatina dimbale néew gi doole di ubbi loo xam ne day jëriñ waaye rek allahu akbar asalaamualeykum rek nangam ak nangam loolu du diine du diine. loolu moom deret la juy daw ci suñ suñ bi yàlla seede na li ma ci li ngeen gis ne def naa ko xam naa li ngeen dëkk Ndofane a ngeen gis jumaa jooja ak feneen fi ngeen di dem comme ni nga ko maa ngi seedeel yàlla ak jaamam yi ne liñ ci def matul asakaay li ñu yéene yàlla laay seedeel ne liñ defagum matul asakaay asakaay lu ñu yéene man bi ma yàlla ma am fii kër ci Dalifort boobu pàkk la woon kese ma ànd ak sama benn doomu ndey ne ko man nag fii laa bëgg li ko dooree fii yëpp ma koy def jàkk mu ne kon sa kër gi jeex ni ma ko ma dëkk ci jàkk ji yàlla seede na ko moo tax bi ñu ñëwee def mooy taxaw ba jàkk ji mën am bañ xam ne ji nañ tabax ku Mati ci mbaaxam sax dafa fe ba yàlla man nga fa tabax sa keur man ko lol dundé diiné la duma fekk lu ñepp bok ma cey tabax sama keur damay jënd keur comme yeen ñepp ñu fi nek nga xamné ci quartier bi bok su paré nak ji man laajuma kenn dara man na am pexé yu ko tabax ci lol la def jënd fi keur comme ñepp alaaji Mor ngi jox ñu pala pak bi may dox ci samay moyen ba ak ben doomu si abbas Sall seigne mustapha Sall dem séti ko moom ci boppam mu ne ma su ma amoon jumaa yi koor sax tabaxal la mu tabaxal ñu fii morgo tabax jumaa ji tabaxal ñu benn classe ci loolu lañ tàmbali ñu topp nag loolu fu ñu am fu ma gis foo xam ne place bu palaas la rek bu laajee ma am xaalis ma jënd tabax jumaa boole ko daara ndax man duma tabax jumaa yi kese du ma tabax daaraay kese damay fexe mu nekk complexe ndax damay jëw ji ma gis ne am nañu ay mag yu bëgg diine mais tàmmuñ jàkk Tajak yang yang tamu koy tambo ci sag ndaw su fekke jamono ji ngay jang alquran nga nek ci place bo xamne place ab jàkka la bu waxtu jot nga dem julli ji bu bu waxtu jot jotee nga dem jangi bo ci demee ba mag da ngay tambu jàkk motax place bo gis ni tabax rek ñaarel bo ne juma jangane man nga wax ne dara jangane dara jangi ni tay xale yaangi ni yeb ci cardinal yalla foofu la ñuy jàng ñu ci bari mokal nañ franco arab baangi ni ñi jang nañ fi ba am seeni diplôme alhamdulilah rabbil alamin ñu orienté leen yóbbu leen boo demee Kaffrine tamit ña ña ngi fay jàng ba am seeni bac boo demee tey Ndofane barki démb laa dem pour ubbi école ba dëkk ba yëpp tabaarakallaahu taxaw kontaan lool ubbeeku ñoom ñëpp yàkkamti ko ba ngi joxe fiche de renseignement yi sax dañ ko doon jukkalante kenn ku ci nekk ne yàkkamti na pour bindu doomam balaa néew rek dana gis lu mat juróomi téeméeri nit ñoo xam ne dañ ko mën a jàngee sen alquran muy 500 personnes ak di fa jàngee sen seen diine noonu tamit ngay dem ba kunda bo démé ba postu keur ay bo démé ba karang li ci yalla jaarale suñu loxo ci lola munu ma tok diko lim loolu lepp nak zalika fadlullahi yuti man yasha loolu la ko gisee légui nak amna projet bu mag bu nek suñ kanam bo xamné 2 deux milliards 500 la yoruñu ko dama ci dogu dogu dugu rek ak dogu li ñi def timit ba koy def ma ci dar amna bëgg-bëgg bi rek duggu ci rek yalla fekk ma ci yàlla seede na ko dugg naa ci daal na sëñ Abbas Sall duggee woon ci projet bële ca Louga bam koo ko muy un milliard cinq cent sëñ Moustapha Cissé bu piri ne ko waaw sëriñ bi ndax li nga lancé xam nga ko mu ne ko wax nañ ne milliard la ak genn wàll de mu ne ko ñaata nga yore mu ne cent vingt cinq mille waaye ba mu ca dogoo gis nga ko yàllaa yebal benn jaamam fële ci Arabie Saoudi mu ñëw tabax man tamit lancé naa maanaam. Euh, euh, maanaam euh, kii deux milliards cinq cent te yaakaar naa suma ma fayee samay bor du ma des cent vingt cinq waaye wóor na ma ne rek non taxaw ma ci xalaat ndax xam naa ne liñ def kafe lu mu néew néew ëpp na cent millions te ba ma cay dugg ñi may jaay place la mënu ma woon a fay mu teew deux millions lañ ma jaayee fi ma def jumaa ji te damaa avancé waaye ba mu pare ngi def fa rajo communautaire yi tabax fa jumaa miire ko def fa école def fa internat def fa fuur damaa mujj sax génnee fuur ba yëpp sopp ko daara boo boolee yëpp ëpp na cent millions xam naa ne Ndofane gi nga romb lañ fa def ëpp na quarante millions diggante jumaa beeg classe la fa nekk lépp ëpp na quarante millions te bu ma ciy dugg sax xaw ma dara dara dama dama damaa dogu rek dugg ci boo demee tamit yeneen classe yi mënumaa toog di ko lim loolu lépp yàllaa ma koy jox rek mu jaarale ko sama loxo ma def aw ma dara tamit lu ma ci raga la ma damay tàmbali rek. procès bi bi ma ko lancé ñu naan nangam xaaruma kenn fu mel nii wóor na ñii di ma déglu ña ne tey daara gi ña ngi koy kuule lañ ca defagum bu Modou Ndiaye toogoon fii wax la ñaata million moo ci dem da ngay yàlla ne lii moom fu mu fu ci yàlla la bàyyee ma defaat ko ci yàlla rek di xaar yàlla kon nag yàlla yàlla defal ñu tawfiq yàlla na yàlla defal ñu taysiir yàlla nañu yàlla xiir ci boppam ci barkeem bi noonu ñun daal mat matériel yàlla rek lañu bëgg boo nekkee bagage yàlla nag fu la yàlla soxlaa rek surtout lu ñu am surtout ñun lu ñàkk luñ bëgg rek lañ xam luñ bëgg daal dugg nañ bàyyi di xaar yàlla kese kon na yàlla yàlla defal ñëpp jàmm yàlla yàlla defal ñëpp sutura yàlla yàlla defal ñëpp xéewal yéen tamit seen site bi yàlla na ko yàlla gën yëkkati yéen a ngi jëriñ xeet bi wax yàlla ñu bëri ñu ngi leen di topp li ngeen yëpp ay njëriñ la yàlla yàlla jàppale leen maa ngi leen di jégalu tamit ci yéex gi mais yéex gi yëpp aw yiw la jàmm la sutura la yàlla yàlla jàppale leen nag ñi sant ñi nga xam ne ñoo fi teew daayira parcelle bi tey ñoo aye Seydou njaay mi ngi fi moo leen jiite tabaarakallaahu ñu ngi koy sant ñu koy gërëm ak ñi mu ànd ak ñëpp bi mi ngi fi moom tamit Modou Cissé ngi fi jiite leen Abdoul Aziz Ndiaye suñu dëkkandoor bu baax mi ngi fi Imam Faye mi ngi ñu bokk ci suñuy nuwaab yi al oustaz Gora Mbaye mi ngi fi soxna maire Maymuna jiite jigéen yi daaru salaam yi ñoom tamit ñi ngi fi ak mbootaayu jigéen ñépp tey ñi ngi fi tey ci jumaa ji ñoom laa séexalee sax daara ji muy suñu dëkkandoor yu baax ma ne leen bis bi ma leen may mooy bis bu yàlla dogalee xale yi mokkal alquran bis booba may naa leen ko yéen a koy organiser waaye dañoo dem ba bu jotee ñooy dem jënd seen ndugg ñooy jënd seeni ceeb ñooy def seen lépp luma len jox rek sama sama ciobare la mais duñ ma laaj dara lepp lu ci aju ci gan rek sama dëkkandoor yu bax yi ñokay def yalla yalla defal len jàmm defal len teranga Cheikh Tidiane padan su xarit su soppe mom timit ñi gi fi tabarakallah ak mbokki wa quartier bi yëpp bàyyiwuñ kenn ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gëreem ñëpp al oustaz Aliou ñaan ñi ngi fi mam khalifa bi mom timit ñi gi fi ku lim rek da nga juum te tey dañoo xaw a guddee yal na yàlla defal ñu jàmm ak sutura wasalaamu aleykum wa wa barakaatu.